gannaaw foo médecin foo journaliste faux policier faux gendarme faux député faux ministre bu ñu moytul faux président moo ciy topp te ñun bëgguñu bokk bokk ñun demee c'est maintenant man mii en tant que seen leader Mamoudou Ibra Kane bëgguma bokk ci ñiy yàq image fonction de président de la république loolu moo waral ñu jël décision gannaaw bu ñuy gërëmee sénégalais yi nga xamante ni jox nañu seen kóolute retire suñu candidature retirer suñu candidature gannaaw bu ñu diisoo suñu biir bi ñu dégloo sénégalais yi dañu jàpp ni décision bi nga xamante ni bi war décision courageuse décision de leadership mooy kon ne sénégalais yi ñun dañuy xaw a def benn pas en arrière tuuti ci mbirum candidature bi